waaw mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewal gi ñu defal ñu ngi dund ci chahru ramadan di jëm ca la nga xam ne mooy jeexital ba falilahi alhamdu mu dëppale ñu it ñu daje ngir jàng la nga xamee ne nii mooy ab téeréem téere boobu nga xam ne wàcce woon na ko ci chahru ramadan yàlla dogal na it bisu altine bi it ca la ko yàlla wàcce woon léppam mi ngi noonu ca asamaanu benneel gannaaw ba nag doo ko wàcce nam ko soobi mi ngi nekkoon ci suratul maida niñ leen ko waxe woon mooy saar la boo xam ne lu bari ci àttey lislaam yi boo demee ya ca sax day nekk ca maida jotoon nañ caa jël ay bind ba tey ñu ngi war a dal suñu borom yàlla subhanahu wa taala la muy wax ca aaya fanweer ba ak ñaar ca mooy min ajli dalik katabna ala bani israil su ko defee kon incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na ñu jël suñu bind bu njëkk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فتان في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom mu ne min ajali zalika ngir lii nga xam ne romboon na ca ñu jàngoon ko démb katabna ala bani israil bind nañ ci kaw bani israil
te mooy farataal nañ ci kaw bani israil annahu man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasaadin fil ard te mooy képp ku rey bakkan lu bokkul ak ne moom daara yoon bakkan wala mu yàqoon ci kaw suuf fa ka annama qatala annaasa jamia ku mel noon day mel ne ne ku reyoon xëy nit ñi mboole seen wa man axyaaha koo xam ne fexe ne ba dundal ab bakkan fa ka annama axya annaasa jamia mi ngi mel ne ku dundaloon nit ñi mboole seen wa laqad jaatuhum rusuluna bilbayinat dikkaloon na leen suñu yonent ci lay yu leer summa inna kathiran minhum ba'da dhalik gannaaw ba lu bari ci ñoom gannaaw loolu lépp fil ardi la musrifuun nekk nañ ci kaw suuf doon ay yàqkat innama jazaau alladina yuxaaribuuna allaha wa rasula nekk na payug ña nga xam ne day dañoo déclaré xeex yàlla ak yonent yàlla wa yasawna fi l ardi fasaada di dox ci kaw suuf yasawna mooy di gaaw di tasaare fi l ardi ci kaw suuf fasaadan ak yàq ñu mel noonu day an yuqattalu bu ñu leen jàppee nañu leen rey aw reyin aw yusallabu wala ñu daaj leen ca garab ya ak aw daajin aw tuqatta aydihim wala ñu daggate ak daggate la nga xam ne mooy seen loxo ya wa arjuluhum ak la nga xam ne mooy seen tànk ya min xilaafin ci jàllawle mi ngi noonu aw yunfaw min al ard wala boog ñu génne leen suuf si zalika lahum xizyun fi dunya loolu dana leen ñeel toroxtaangi ci àdduna walahum fi l axirati azabun azim mu ñeel leen nag ci àllaaxira mbugal moo xam ne mu màgg la mbokk jullit bi ñuy mujj daje ak yéen suñu boroom mi ngi ñuy nettali ñaar ci doomi aadama ñu am problème problème boobi la ëpp ci mufassiruuna yi ne la ko waraloon mooy soxna bu ñu waroon a takk loolee dem ba kenn ka wëlbatiku rey moroomam rey ko ngir intérêt àdduna suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ni ngir bañ lu mel nii di am doomu aadama yi ku am intérêt ci sa morom rek faagaagal ko suñu borom ce ne nii laa binde woon ci kaw bani israil bani israil ñooy xeet bi ñu jiitu na doon ma nga commencé ca yanquuba ba ci isa bnu maryam yàlla wàcce ci ñoom ay téere téere yooyu yàlla wàcce ci ñoom ñu war koo attewoo lépp loo xam ne alquran ñëw na nettili ko saxal ko loolee la shakka ne sunu sharia la comme nam nekk seen sharia ñoom lépp loo xam ne alxuraan ñëw ne weddi ko su boobaa ay caaxaan la yu ñu dolli ci téereb yàlla ba bokku ca lépp loo xam ne alxuraan ñëw na ca waxu ca dara su boobaa ñun dañ cay maandu duñ ko gëm duñ ko weddi amma lii alxuraan da koo nettali ne yàlla moo bindoon ca bani israil na leen xam leen ne day kii di doomi aadama ja xoolal la nga xamee ni nii tey ñun ñëpp ci aadama lañ jóge waaye masalan bu doonte ne ñoom ñaari doom rek lañu man nga wax kon lii di milliards yi milliards yi génn gannaaw ba yépp kenn kay dund moo leen juru kon ka nga xam ne dafa dee kookit bu doon te ne tey moom mi ngi doon am njaboot kon doomu aadama yi daan dubli nit ñu nekk kon ku rey benn bakkan mel ne nga ku rey ñépp suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni ki nga xam ne dafa rey bakkan ca bakkan boobee mu rey du ne moom dafa reyoon bakkan walla mu indi ak yàq ci kaw suuf ca mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne bakkanu jullit ñett rekk ay tax ñu war koo rey benn bi moom ci boppam daa rey ab jullit ca moo ko tey ñu ngi noonu ñaareel bi mooy dafa doon koo xam ne mas naa sëy ba parewul ba tukku di njaaloo ñetteel bi mooy mu xëy xëy ne génn na ci diine ji ñii rek la ñuy rey ci lislaam amma beneen déli bu doomu aadama mën a def ci biir lislaam am na pen bu ñuy teg ci kawam waaye kenn du yegg ci di ko rey borom boobu nag ne ki nga xam ne rey na bakkan boo xam ne yeey woon ñu koy rey moo ki reyul ñépp a yem te borom xam-xam yi ne masalan ki weddi benn yonent weddi na yonent yépp kon it ki rey benn bakkan moo ki rey ñëpp a yem ndax bakkan yëpp a araama rey su ko coobaree rey kenn kon moom daganal na rey ñëpp kon mel ne na rey na ñëpp suñu boroom it ne ka nga xam ne da koo dundal ki dundal bakkan mbokk loolu forme yi bari na lool bokk na ci dundal bakkan mooy yow ñu reyal la yow yaa wala jox ordre pour ñu rey kala reyal su ko defee tey boo demoon dëkk bi la Arabie saoudite nit ki bu rey nit ba jugement bi yépp saxal ne moo ko tey moo ko rey teewul islaam bëggul di gaaw a rey daañ woo ña nga xam ne ñoom la mbir mi siq laayee leen biir ñaan leen nañ fexe kiy joxe ab diir ay impôt buñ koy teg mu fay leen ko te ñu bañ koo rey ñoom bu ñu dëppoo ne déedéet nañ ko rey su boobaa ba ñu yóbbu ko ca fa ñuy reyee ca fa ñuy reyee jàpp waa ji yeew ko sukkal ko woo borom jaas ji taxaw ba dara desul di yëkkati dóor ki nga xam ne mooy procureur bi dana woowaat kilifa ña moom kàddu gi ne leen loo ci xam ndax du ngeen ko baal suñ nee baal nañ ko ñu bari foofu lañ leen di baale ndax buñ gisee rek daw yaram gi nekk ci seen mbokk doomu aadama bu ñuy yeew sukkal ko léegi war a corbab bi amma nag loolu la yàlla da ci loolu bokk na ci buñ ko baalee ca yeyoo woon nañu rey ko loolu da ngay gis ne ku mel noonu dundal na doomu aadama amma buñ ko baalul moom lañ koy rey mu jeex bokk na ci dundal doomu aadama nga gisoon koo xam ne nii tey moom kat mi ngi nekkoon ci al alkaange waaj a faatu waajee ngay lab géej yow yàlla may na la nga mën a féey nga sóobu jëli ko mel ne ne nga mboolem nit ñi dund ci kaw suuf yépp sëwa nga leen lu mel noonu muy wane ne kon suñu koor yi nga xam ne yàlla da leen a nattoo ñu nekk de taxawu doomu aadama yi aka neexoon ñu tàggat leen ci gëm yàlla ak jaamu yàlla kon kenn daaw du leen ëpp tuyaaba waaye da ngay gis mbokk malheureusement sunu armée yi ku ne xam ne mooy armée ki ma sa jaar armée xam na ko ku mu sa jaar armée boo déggee xam ne jaamu yàlla mu amul armée xale yu bari dañuy jàmbat ci dañ nga fee nekk léegi-léeg heure julli bëgg a julli non non non du heure julli kenn du la permettre nga julli lu dul ci ay yenn caserne yu yu yu néew waaye lu ci bari seen formation yi ñuy def ak seen mobilisation yi ñuy def ak yépp xalaatoo heure julli nga naan da ngay bàyyi poste bi di julli ci loolu nag mbokk bu doon tene ne armée yooyu bi ñu leen di yar dañ cee boole ne gëmloo leen ne li ngeen di def def leen ko ngir yàlla commencé ci le militaire bi nga xam ne moo sol tenue de combat dem ca frontière ba di xeex ngir réewam duñ ñëw noot ko ba rey ñi fi nekk mbokk ko mel noonu mel na ne sauvé na àdduna bi yépp policier bi nga xam ne agresseur a nga jóge fële ñëw bëgg a faagaagal ay nit ñoom ñu ñëw xeex ak ñoom repousser leen mel na nga ko goreel ko ko ko dundal nit ñëpp sapeur pompier bi taxul ñuy wax nga xam ne ñoom loolu mooy seen un bakk ba ñoon dëkk mel ne Sénégal la ñuy bakkoo mooy sauver ou périr képp ku ñuy gis ngay waaje faatu même ñoom seen bakkan bu ci doon des duñ toog mukk di la seetaan luñ mën dañ ko def ba sauver la même ñoom buñ ci doon des ndeysaan at yi passé rek am na benn immeuble bu doon lakk fële ci boor yi di foncé am na benn jeune sapeur foofu la faatoo yal na yàlla yërëm ko waaye loolu yëpp ak a neexoon biñ koy def fekk yàlla tax almuhim mbokk le médecin ci lu dugg képp koo xam ne def nga pexe ba doomu aadama ji waroon a faatu faatuwul suñu borom nee na yaa ngi mel ni ku dundal nit ñi mboole seen naam léegi nag suñu borom mu ne suñuy yonent dikkal nañ leen ci lay yu leer yàlla waxul sax yónni naa ci ñoom ay yonent ndax nit ki mën nañ ko yónni yonent ci dajewul ak yonent bi wala xamul li yonent bi indi amma bani israil yi suñu borom nee na yonent yi dikkal na leen muy benn ngoog bil bayyina ci lay yoo xam ne leer na ci ñoom ni lii yàlla subhanahu wa taala daa araamal doomu aadama di jalgati aqu moroomu doomu aadama waaye gannaaw loolu lépp teewul la ëpp ci ñoom ñi ngi nekk di yàq ci kaw suuf te yàq ci kaw suuf weesuwul jalgati ndigal yàlla bu ca àndee nag jalgati sa ndigalu moroomu doomu aadama mu doon lu gën a garaaw loolu moo tax ba mbokk sunu doom yi di agressé ñii di sàcc fii ñii di nangam ndax dañoo xamul ne li ñuy def baaxut xam nañu li ñuy def baaxut ñi ngi noonu xam nañu def baaxut kon loolee mooy musiba bi borom bi subhanahu wa taala nag ne ñooñu nga xam ne dañoo jóg di xeex yàlla xeex yonent yàlla mbokk nit ki indi ay xalaatam ba koo tëral képp ku jóg indi contraire boobu da nga koy xeex da nga dégg naan daf may xeex ci politique bi daf may xeex ci syndicat bi daf may xeex ci kër gi daf may xeex ci nangam ca may ku safaanoog yow bëgg say xalaat dandu ay xalaatam sax kooku mi ngi lay xeex kon bu yàlla ak yeneen tam daal di tëralee ay loi loi yooyee am ñu jóg ne ñoom seen yónneewu ci daal di tëral seen loi bopp ca di nekk di yàq ci kaw suuf suñu borom nee na ñu mel ni bu ñu leen jàppee ñeenti mbir yi nañ ci def ak ñoom benn benn bi jëkk nañu leen rey walla ñu daaj leen ca garab ya reye leen foofe walla ñu dagg seen loxo ndeyjoor ak seen loxo càmmooñ walla ñu génne leen ci kaw suuf su ko defee mbokk lii moom attekatu lislaam bi moom mooy xool dili bi waa ji def su dee ni agresseur bi dafa ñëw gis ab jullit rek mu daal di koy jël rey ko su boobaa moom bu ñu ko jàppee dañ koy rey su dee ni nag dañoo gis moom day am nañu mu rey am nañu mu gaañ su mel noonu moom dañ koy daaj ci ab ab croix yóbbu ko ci benn garab daaj loxo ndeyjoor ak càmmoñ tànk ndeyjoor ak càmmoñ bu ko defee bàyyi ko foofee gannaaw bañ coree boppam mu nekk benn misaal nit ñi di ko gis ay fan ñu doog koo wàcc pour suuli ko amma bu dee ne moom bi muy agressé dafa gaañ nit ñi rek jël seen alal waaye jotul rey su boobaa dañuy dagg loxo ndeyjooram fi ñu takk montre dagg tànk càmmooñam ca fa kosten ba bàyyi ko bàyyi ko bay bàyyi ko mu dem mi ngi noonu loolu la suñu borom yàlla wax foofu amma am na ci ñoo xam ne mas nañ def jëf ju ñaaw ca madina ay nit ñu ñëw ni dañoo tuub bi ñëwee ni dañoo tuub yeneen ci bi alayhi salaam teral leen ay teraanga ñu nekk madina bu mujj am feebar bu leen fa attaqué yonent bi alayhi salaam ne leen seen feebar bii de su ngeen demee ci àll tel am na ay giléem yañ fa teg muy giléem yi zakkaat yi am na ñu koy sàmm su ngeen dee naan ci meew mi ak di naan ci saw giléem bi loolu dana leen faj ñoom ñu dem biñ demee sàmm yi dalal leen yor leen foofu ah ñu nekk di naan ci meewu giléem yi ba ñoom ñépp ñuy tane benn guddi rek ñu bàyyi ba sàmm yi nelaw ñu rendi sàmm yépp jiital jur gi daw suñu borom yàlla xabaar bi yëg yëgle xabaar bi ci suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam mu daal di fëgg ndaw yi saaba yépp ñu jóg di leen dàq di leen dàq di leen dàq ba jàpp leen biñ leen dàppee ba indi leen madina yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dagg seen loxo ndeyjoor dagg seen tànk càmmooñ foq seeni bët sànni leen ci montagne yi ñu nekk foofu di yuuxu di yuuxu ba dem di jël suuf si di lekk ak xiif ak mar ba noonu la ñu dee mbokk ki ëpp yërmande ci jaamu yàlla yi mooy yonent yàlla bi mais borom bi subhanahu wa taala moo ko ëpp yërmande waaye mbokk yërmande mooy lan mooy fexe ba mbon jóge ci kaw suuf yooyu dañ ko jàng ci kanam fi yàlla yi wax sàcc bi neen da koo def mu nekk nakaal luy delloo keneen mu bañ a def lu mel noonu te muy jëf jooju yonent bi def ak ñoom képp ko xalaate di def lu mel noonu da nga ko da nga ko bàyyi su ko defee dana sauver ay bakkan loolu kon yërmande mooy tëral loo yàlla ci kaw suuf lii mbokk da ngay gis ni mooy atte yi suñu borom bi wax ci loolu am maa nag bu dee agresseur bi moom jotu la gaañ nit waaye daal jàpp nañ ko fa muy defe mbir ya ñu xam ni kii kët mi ngi fitnaal doomu aadama yi su boobaa moom rayul gaañul waaye comme yii na baa nekkoon ci moom ak jubluwaayam duñ ko fi bàyyi ràcc na tey muy ëllëg muy def musiba dañ koy génne dëkk bi doonte ne ci jamono Omar ibnul Xattaab ijtihaadam bi mu defoon moom mooy ay agresseur bu leen nga génne leen fii dañuy gën a indi problème moo jëkk a tabax benn prison ca la ñu commencé képp koo xam ne dañ laa jàpp ci lu mel noonu ñu tëj la ca kaso ba lañ jàpp ne bu ñu la fa tëjee dana delloo si sa xel donc mën wax ci cas boobu rek la l'islam di gisee ay agresseurs yu ñuy jàpp di leen tëj ci kaso amma li xew suñu réew ca ñu jële ko ci yéeféer yi xam ngeen ko demal tey camp pénal mooy kaso bi gën a rëy ci Sénégal da nga fa fekk koo xam ni rey na ñetti nit mu bokk ak benn cellule koo xam ne ay ganaar la sàcc mi ngi noonu fekk benn waay boo xam ni lu jege juróomi nit rendi na leen lan mooy fayam sa néeg a ngi nii soo bëggee entraînement terrain baa ngi nii jàkka jaagee boo bëggee julli télévision ngay boo bëggee seetaan lii mooy la nga xam ne mooy ci nekk tëddal sa añe ngi ñëw sa reere ngi ñëw sa ndekkee ngi ñëw neex nag neexul ba mbokk ku lii ndax dana tey nit ki def musiba ah kay moo tax koo ci gis dañ naan la jàpp nañ ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon mais tey jii bu doon te ne dañoo gis la nga xamee ne nii moom la Arabie saoudite géey di appliqué ak la fa nekk ci alal da ngay gis ne naam du tee agression am waaye dalay leer ne buñ doon rey téeméeri bakkan par bis ñu tëral loi l'islam wallaay quatre-vingt-dix see dañ mucc quatre-vingt-dix see dañ mucc xale bi góor bi dara agressé ji xalaat ne ah sama xarit papi day daaw lañ ko rey fii mi ngi noonu sama xarit Jean day ma nga ne dagg nañ loxo ndeyjoor ba ak loxo càmmoñ ma ila axiri ku mel noonu balaa agressé dina ko seetaat loolu moom mooy mbir bi su ko defee nag maadaama tey jii loolu lépp amu fi xale yi seen yoon newu ci benn weeru koor fii ndeysaan suñu benn mbokk commerçant ñaan fii ci marché du set ñu bëri xamoon nañ ko mu baax amoon ci société bi njëriñ la ko fay agresseur fekk dóor ko balu fetal jël la fa nekkoon dem seen yoon mën nam ñooñu may wax sax ñu ngi ci mbedd mi dox seen i soxla di gis ngeen loolee kon bokk nañu xam ne suñu borom yàlla day subhanahu wa taala lam prévoiroon ngir sauver ñu mooy lii tubaab bi jàpp ne c'est de la barbarie ñoom loolu lañ jàpp waaye islam day lii la tëraloon ca lii rek mooy la nga xam ne moo ñu mën a may jàmm yal na yàlla delloo ñu ci àtteb lislaam mi ngi noonu cheikh
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا إليه
barakallahu fiik suñu borom mu ni illa alladina taabu lu dul ña nga xam ne nag tuub nañ agression yooyee min qabli an taqdiru alayhim jiitu ngeen di am kattan ca ñoom faalamu anna allaha gafurun rahim xam leen ne day yàlla ku jéggalaate la ca ku yërëmaate la yaa ayuha allazina amanu ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ittaqu llaha wabtagu ilayhi alwasila ragal leen yàlla te sàkku jëm ci moom mooy bu leen jot jottali ak seen boroom bu leen jokkale ak seen boroom wa jahidu fi sabili jóg leen jihaad ci yoonu yàlla laallakum tuflixuun ngir ngeen doon ñoo xam ne da ngeen di texe inna allazina kafaru ña nga xam ne nag dañoo weddi law anna lahum ma fi l ardi jamia bu doon dafa nekk ñeel leen li nekk ci suuf mboolo seen wa mislahu ma ah ak lu tol noonu ànd ak moom li yaftadu bihi min azabi yawmi alqiyaama ngiree ñu bëgg caa jotu ca mbugal may am ca yawm alqiyaama maa tuqbila minhum loolee kenn du ko nangu ci ñoom walahum azabun alim te da leen di ñeel mbugal moo xam ne mbugal mu tar lay doon bokk suñu boroom subhanahu wa taala ku bëgg yërëm ay jaamam la heure boo xamee ni nii jaam yi tooñ nañu la nga xamee ni nii mooy atteem day nekk atteb yërmaande looloo tax képp koo xam ne danga def benn ci yooyu suñu borom doon tere kenn amul kàttan ci jàpp la ba nga dem ci yeneeni place ñu yëg ne yow kat tuub nga tuub gu sell yaa ngi wëlbatiku di dund lislaam bu rafet suñu borom yàlla ne ñu mel nii day même buñ leen jàppee bu kenn teg ci ñoom ay loi ndax yàlla kuy jéggale ay jaam la kuy yërëm ay jaamam la ca it loolu mbokk julit xam nañ ne lu mën a nekk la ndax lañ ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali benn agresseur boo xam ne xam naa mooy patron agresseur yi parce que yonent bi alayhi salaam nee na quatre-vingt-dix-neuf personnes la rey xelam doog a dem ci tuub mu dem ci benn jaamukatu yàlla bu amul xam-xam da ko man daal yàlla nattu na ma rey naa téeméeri bakkan yu manqué benn sama xel nag ne moom yow mii de tuub jot na de tuubal dellu ci yàlla waa ji na ko ha benn bakkanu jullit ku ko rey sawara la jëm yow nga rey quatre-vingt-dix-neuf bakkan yow ko jóge fi sawara nga jëm mu ne ko ah bon mu ne waaw mu ne ko kon xaaral ma téeméeri la cor jaay si mu dee dem ci dellu ci agression ba mujj yàlla mi wëlbati xol yi wëlbatiwaat xol bi mu laaj ne waaw dëkk bi ko fépp xam-xam ñu ne ko ah suñ càmm ma nekk fu la dey mu raw ci dëkk bi ah mu dem ci moom wax ko fi mu jaar fépp suñ càmm na ko ah lu dox sa digganteeg tuub suñu boroom bàkkaar yépp lay bale xam naa da nga ne moom daa ragal ñu rey ko waaye dafa ëpp xam-xam rek mu ne ko bàkkaar yépp lay bale léegi kay yow tuubal tuub gu sell te it liy dëggal sa tuub mooy dëkk bii nga nekk dëkk bu bon la demal dëkk sàngam nga jaamu fa yàlla ak ñoom loolee ba muy dem ca yoon ba ca la ko yàlla moom mu faatu histoire ba la ca tegu gudd na waaye ala kulli xaal yàlla baal na ko mu dem aljanna loolu muy won it ne kon agresseur mën na nekk ku doy waar dem ba jimmi jamono yàlla subhanahu wa taala wëlbati xolam mu doon koo xam ne ko baax la kii buñ ko jàppee mboolem àq yi yàlla amoon ci moom dañ ko koy teggil kenn du ko rayeti wala ñuy dagg ay loxoom wala kaza wa kaza donte nag dana gàllu ci loo sam àqu doomu aadama yi bu doon daa sàcc alal yu doomu aadama dañu ko ah da nga lijjanti fay seen alal su doon am na kenn ku mu rayal seen mbokk te ñu xam moo ko rayit ñooñu daal leen woo ne leen ah mi ngi nii kët moo fa rayoon seen bàyyi léegi nag ah tuub na su ko defee lan ngeen xalaat ci moom suñ ko baalee ñu xam ne baal nañ ko doonte ne ni am na yenn agression yoo xam ne nii bu doon waaji bañ koy jàpp tuubagul même bu ko famille bi baalee attekat bi am na droit rey ko bu dee ne moom liggéeyam mooy agression bokkul ak ki xeex ak nit ki rek rey ko kooku moom problème mu famille bi la mais koo xam ne agression mooy sa liggéey famille ba nga reyal même bu ñu bàyyee baalee sax attekat bi am na droit rey la amma bu xisee ba tuub attekat bi amul droit tegati ci moom benn peine boo xam ne aqu yàlla la lan moo ci des rek mooy aqu doomu aadama yi borom boobu subhanahu wa taala bàyyi loolu daa di na ay yéen jullit ñi gëm ittaqullah ittaqullah te mooy moytu leen lépp lu leen di jural bëggulu yàlla ngi noonu suñu boroom teg ci ni sàkku leen lu leen jokkale ak seen boroom sàkku leen lu leen di jokkale ak seen boroom mbokk wasila moom mooy moyen malheureusement li bari ci jullit ñi niñ ko déggee wasila nit la koy jàpp diw mooy suñu wasila nga xam ne mooy dox sa diggante ak sa boroom moom bu ñu la waxee gëna diw da laa yaakaar adduna ak alaxira am na ñu ci yegg ba bu ñuy waat aw turam la ñuy indi am na ñu ci yegg ba bu ñu fakka solo aw turam la ñuy woo lu tax ndax kooku mooy seen wasila moo dox seen diggante ak seen boroom nga noonu am na ñu ci dem ba créé ci ay xutbu nga xam ne lu jóge ci jaam yi balaa yëg ci yàlla ci ñoom lay jaar lu jóge ci yàlla di jëm ci jaam yi ci ñoom lay jaar mbokk yooyu da ngay gis ne seytaane jaare na ci fam jaare woon maami yéeféer yu jëkk ya maami yéeféer yu jëkk ya ñoom xamoon nañ ne yàlla mooy yàlla lu taxoon ñu ko doon bokkaale dañ doon wax ne ñun xërëm yii day wa ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa dañ leen topp ngir ñu jegeel ñu yàlla waaye ñun xam nañ ne ñii duñu yàlla la in saaltuhum man xalaqa samawati wal ard la yaquluna allah la in saaltuhum man xalaqakum la yaquluna allah ku bind asamaan yi suuf yàlla ku leen bind yéen yàlla kuy wërsëgal yàlla kuy def lii yàlla lu tax ngeen di jaamu ñi nag ñun waaw ñii ñoo ñuy jegeel yàlla gis ngeen loolu nag mbokk mooy déggin bu juum ci dégginu wasila su ko defee wasila mooy moyen moyen bi yàlla doog doxale suñ digganteeg ñun wax na ci xadisul qudsi ab yonentam ma taqarraba ilayya abdi bi cheyin ahabba ilayya mi ma aftaratuhu alayhi sama jaam du ma jege li ma ko gën a bëgg li du ma jege lu ma gën a bëgg li ma farataal ci moom mbokk wasila ba ca jiitu nañ xam ne moom mooy tawxid wéetal sa borom bañ ko bokkaale képp koo xam ne shirk mi ngi sa biir xol leneen loo mën a defal yàlla loolee du la jegeel yàlla amma bu tawxid amee sa biir xol su booba la gën ci lu lay jegeel sa boroom mooy li yàlla faratal ci yow ay yow jullit xamal ne rak jullik suba di ñaari rakka moo ëpp doole ca yàlla mille rakkay naafila mille rakkay naafila xamal ne la nga xamee ne ni mooy zakat bi yàlla faratal ci yow moom la yàlla gën a considéré milliard boo jëloon sarxe ko te du zakat ndax yàlla lim gën a bëgg ci ñun mooy lim faratal ci ñun loolu kon muy mbir mi muy wane it ne yow doomu aadama sa wareef la nga jéem a jàng ndax li yàlla bëgg boo jàngul mënuloo ko xam wasila bi gën a yey bi fondement wasila yi ngir jege sa boroom solol sow dal jéem a jàngi lan la yàlla bëgg ci yow mi ngi noonu suñ jataay bi jataay yu wasila la ñu ngi toog di déglu téere bi yàlla bi fas yéene insha allah lañ ca jàpp ne ay ndigal la ñu jëfe ko yal na yàlla jàpp lañu ca waaye gannaaw loolu it suñu borom ne yeneen tam bi wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba sama jaam bi gannaaw bi mu defee farata yi nag doo deñ di ma jéem a jege ci naafila ba ma bëgg ko ñaari rakka yooyu julli yaa ngi ciy jublu jege sa boroom ñaari dërëm yoo sarxe yaa ngi ciy jublu jege sa boroom fan booy naafila ci koor yaa ngi ciy jublu loolu teraanga booy defal doomu aadama yi lépp looy tànn ci wax ju baax yii yépp jullit da koy def ngir jokkoo ak boromam loolu mbokk mooy ndey wasila yi doonte ne bokk na ci wasila mooy doomu aadama bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñaan dana def loo xam ni lu gën a gaaw la ay jaamu yàllay def loolu tax jullit day toroxlu ci kanamu yàlla di bàkk yàlla ci ay turam ak i melokaanam di ko ñaan yàlla baal ko di ko ñaan yàlla yëkkati ko di ko ñaan yàlla jegeel ko boppam mi ngi noonu di ko ñaan yàlla gindi ko mi ngi noonu loolu mooy wasila bi nga xamee ni itamit te wasila yi gën a dëgër la bokk waaye la nga xam ne mooy ndey jay tax ñaan nga nangu mooy li ma la jëkk a wax di farata yi am déet ñoo ngi gis ci ayatu siyaam suñu borom mu ne yonent yàlla bi ida saalaka ibadi anni fa inni qari samay jaam fuñ ma la woo fuñ ma woowi man day aji jege laa danaa wuy ñaani ki ma woo waaye nag fal yastajibu li wala yuminu bi bala ñoo xalaat ma leen di wuyu ñoom it nañ ma wuyu ba pare te mooy jullit soo defee say farata xamal ne bokk na la gën a màgg ngay taxaw nag di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu bokk it ci wasila bu ñu islam may ca loolu moo gën a lëntal lu bari ci bopp nit ñi mbokk mooy mbokk jullit buy dund mën na nekk wasila sa digganteeg sa boroom masalan benn waay ngi ñëw naan ñaanal leen ma ci sama aajo di bés ba na ngeen dégg ko waay kon ñun ñi ngi dox digganteem ak borom bi e yàlla yàlla na nga fajal Cheikh Ousmane ay aajoom loolu ab intermédiaire wasila la mais mi ngi dagan ci koo xamee ni ni day dund comme yow nga ñëw bul ma fàtte ci ñaan mën na la jéggalul mën na la defal lépp am naa koo xam ne daa faatu nga ne tey jii Abubakar ni Saddiq yaa ngi koy def wasila ci yàlla ay Abubakar ni Saddiq yàlla na nga waxal ma yàlla kaza wa kaza déedéet mbokk julit loolu du loolu du wasila loolu shirk la waa ji nga xam ne nekku fi nekku fi nga jàpp ne kat moom mën na nekk sa wasila sa digganteeg sa boroom ca amul lenn lu leen jokkale na am tey portable yi am na doomu aadama yépp ñu ngi toog benn place léegi kon ki lay amee rek mën nga ko woo diw mu ne waaw boo jullee ba pare bu ma fàtte ci ñaan loolu mën na nekk waaye ndax sëñ bi faatu woon daaw am nga droit na ñu nekk ca barzak naan ko moom na la na na na la régler sa problème problème mooy déedéet Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu gis nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ masaan maral mooy toog taw war a ñëw ñëwul daf naa nit ñi nañ génn ci àll ba bu ñu génnee sallallahu alayhi wa sallam mu jiite ñaan yàlla yàlla may leen am ndox yonent bi faatu na léegi ci jamono Omar ñu toog diir yi mu waroon a taw yëpp tawul Omar ne mbooloo mi kaay leen génn ñu dem ñaani ndox biñ demee ba fi ñuy ñaani mu ne ay yàlla ñun day dañ daan ñëw fii jiital sab yonent mu ñaanal ñu la yonent boobu léegi nag faatu na waaye yàlla bàyyi mi ngi nii te mooy rakk bàyyam di Abbas yàlla ñi ngi jiital Abbas ngir mu ñaanal ñu la nga may ñu ndox loolu da ngay gis yàlla da leen daan wuyu may leen ndox waaw gaa yi bu doon sakku wasila ci ko dee ñoom ñi ngi ni madina xabru yonent baa ngi nii duñ dem ci xabru yonent bi rek na ko waxal yàlla mu may ñu ndox waay loolee kon ñu xam ne mbokk wasila kenn du ko déggee ne ab sëriñ bi faatu woon depuis kenn xamul xamoo ko sa baay xamoo ko sa maam xamoo ko nga jàpp ne kooku mooy sa wasila sa diggante ak sa borom doomu aadama yi la leen di jokkale seen borom wax naa la ko mooy jëf yu baax yi ñuy jëf ñaan yu tedd yi ñuy ñaan ak la nga xam ne mooy seen mbokkam jurit bu leen ñaanal lii la ñuy tuddee wasila borom bi nag wëlbati ko ne wa jahidu fi sabili jihaad leen ci yoonu yàlla mbokk jihaad buñ ko waxee ci diggin boo xam ne nii bu ñu tënk la rek mooy jihaad ak yéeféer yi waaye mbokk xam leen jihaad moog aj màkk ñoo yem jihaad dafay am waxtu wu muy mën a nekke dafay am ñu ko mën a taxawe ndegam aj màkk gii rek nga xam ne ab voyage la rek la dem wër kaaba ga kaza la suñu borom ne li man istataa ilayhi sabila ci ku ko man jihaat it ña mën a jihaat ñooy jihaat bu dul looloo xaru la bu dul looloo xaru la looloo tax lu bari ci ndaw ñi tey nga xam ne dañoo jàpp ne dañoo war a jihaat ak yéeféer yi lan moo ci mujj xew mooy soo xoolee effort yi ñuy def yépp la cay dee ci jullit un dixième ba deewu ci ay yéeféer loolee lay lay jur su ko defee mbokk jihaat ay shurut lay doon yoo xam ne boorub jullit moo ko mën a woote dëppoog borom xam-xam yi ya nekk ci réew ya ñu daje xool ndax am nañu kàttanu mën a jihaat ak buñ ko amee it naka lañ koy defee mais du doon mukk mbooloom ndaw yu daje fee rek jaayante ni diw yaay suñuy kilifa ay ci nañ dem takk suñuy bomb ak takk suñuy nangam ne loolu jihaat la mbokk loolu ak xaru la mi ngi noonu doonte nag jihaat buñ ko booyalee moom mën na ëmb lépp bépp effort bu nit ki di def ngir def ak jaamu yàlla jihaat la bépp effort booy def ngir bàyyi mooy yàlla jihaat la looloo tax koor gi jihaat la yaa ngi jihaat ak sa bakkan ba bàyyi lekk gi naan gi wax ju bon ji kaza wa kaza loolu lépp da ngay gis ne al mujahid man jahada nafsahu fi zatillah kiy jihaat dëgg dëgg dëgg mooy ki jihaat ak bakkanam ñu ngi noonu ba defloo ko li yàlla bëgg jihaat ak sheytaan ci jaxase yim liy def jihaat ak naafiq yi comme naka yonent bi daan defee jahidil munafiqina waxlus alayhim te yonent bi musul rey benn naafiq mais yàlla mën na ko jihaatal ak ñoom ca seen plan yi seen galgal yi fexe di ko xam di leen wax wax yu dëgër wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga di leen wax wax yu yegg seen xol loolu mooy jihaat kon jihaad buñ ko booylee day ëmb bépp effort bu nit ki di def ci yàlla tax loolu dañ koy tudde jihaad jaahidu fillah laalakum tuflihun borom bi nag bàyyi loolu adduna jeex na ma nga àllaaxira mu ne ay yéen yéeféer yi xam leen ne su doon te ne nit ki dafa amoon trésor yi nekk ci kaw suuf yépp mu moom ko am leneen loo xam ne dafa tol ne moom bis bu jàkkaarloo woon ak sawara doon na mébét yàlla jël la lépp ca moom mu mucc ci sawara loole bu ko yàlla wax jullit ñi mooy jullit fexeel ba lépp loo xam ne mën na laa yóbbu sawara ngal la waaye bu la ko àdduna ak li ci biiram jaral bu la ko àdduna ak li ci biiram jaral ca pour joxeem ci rek yéen ndaw ñi benn misaal am na ku ñuy wax abdullah ibnu xuzafa asahmi mi nga xam ne nii histoire am ak nekkoon ndaw ñu bëri xam ko bu ko yonent bi dee yónni ay lettre am muy dem di yóbbul la nga xam ne nii ay buuri ruum yaak yeneen waaye benn passage bu ndaw ci dundam rek ñoom dañuy demoon ci jamono Omar ibnu Xattaab loolu mi ngi amoon atum fukkeel ma ak juróom-ñeent Omar yónni leen ba ñu ngi xeex ak empire romain bi ñu demee. ki nga xamee ne ni mooy Qaysar bi nekkoon buuru Ruum bi daa di ne su ngeen jàppee lenn ci jullit ñi fexe leen ngeen indil ma leen parce que bëggoon na xam daal ñii ñooy yan façon nit lañu bañ leen jàppee ñu jàpp ca ndaw bu ñuy wax Abdullah ibnu Xuzaafa nga xam ne moo jiitee woon détachement ba bi ñu ñëwee buur bi xool leen am na daal lu ko yéem prisonniers yi ñu fi daan indi dañ naan pat pat pat pat bu ñu gisee buur bi mais ñii ñi ngi mel ne ñu ngi seen salon ñoom faaluwuñ buur bi sax dégg nga léegi mu ñëw woo Abdullah na ko daal léegi yéen ñi vraiment ñu mel ne yéen dama leen a dama leen a bëgg da ngay ñëw nga toog fii nekk chrétien dara doo ko manqué bu ko defee ma yorale lépp mu ne ko chrétien mu ne ko mu ne ko mari di tari loolu koy xel xaatu ko mu ne ko non danaa la jox genn wàllu sama nguur yaa koy gérer may la sama doom kasa wa kasa mu ne ko hey buur gis nga boo jëloon sa nguur gi ba mu jeex tàkk nga jël leneen doll ci pour ma génn ci lislaam une minute duggal sax du ma ko def yaa ngi dégg loolu rek moom ittilim ci aaya bi ala kulli xaal histoire ba gudd na gudd na ba détermination boobu ca la musale desiti prisonniers yi xëy na dana ñëw ci yeneen waxtaan waaye loolu rek mu nekk mu ab yóbbal ñeel suñu ndaw ñi nekk Occident ngalawaay yi ñu bari ci ñoom jàpp nañ ne alal la ñuy wuti yàlla day araamal na drogue xam nañ ko yàlla araamal na jaay drogue xam nañ ko mais lan moo leen itteel nañu wuti alal suñ paree nag doog a seet lu ñuy def ak yàlla loolee mbokk nañu xam ne lépp loo xam ne yoonu sawara la àdduna ak li ci biiram jaru ko ñu bari ci ñoom ñu ngay dem di dugg ci góor jigéen ñu bari ci ñoom ñu ngi dem di dugg ci ay agression di dugg ci lu nekk loo xam ne wóor na leen ne lii day mën na leen yóbbu sawara mais qu'importe alal moo ma indi naa fexe bam alal loolee mbokk ñoom buñ ca jëlee raay ba it loolu ma wax dana am xattaa ci suñ biir réew waaye daal li ma la yéegal mooy ndawal jullit wërsëg bi yàlla bind na ko ci yow muñal rafetalal bala nga dee li yàlla tudd ci wërsëg da nga ko jot noo ko mën a wute ci wutin bu ñaawit loolee bu la yàlla jéggalul mbugal rek la lay jural waaye fexeel ba ngal la waay jubóog sa boroom mucc ci sawara ngir tàgg àjjana yàlla na yàlla yombal ko ci ñun ñëpp naam
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير barakallahu fiik suñu borom mu ne yuriduuna an yaxruju min annaar ñooñee day def jëf joojee daañ bëgg a génn ca sawara wa ma hum bi xaarijina minha waaye ñoom duñu génn ca sawara soose walahum azabun muqiim ca dana leen ñeel mbugal bu li buy sax ci ñoom buy sax ba faw wasaariqu wasaariqa sàcc bu góor ba ak sàcc bu jigéen ba faqta'u aydiyahuma dagg leen seen ñaari loxo ya jazaa'an bima kasaba loole nekk pay ca la nga xam ne ñoo ko faggu nakaalan min allah loolu di mbugal buy jajjaate bu bawoo ca yàlla wallahu azizun hakim yàlla mooy ki not ci kàttanam lépp waaye mooy ki xereñe faman taaba min baadi zulmihi wa aslaha koo xam ne nag tuub na gannaaw bàkkaaram ba daal di yéwénal fa inna allaha yatuubu alayhi ku mel noonu day yàlla dana nangu tuubam inna allaha gafuru rahim yàlla day kuy jéggalaate la kuy yërëmaate la alam taalam mu ndax yow xamoo anna allaha lahu mulku samawati wal ard te ne yàlla kat moom ñeel na ko lii di nguurug asamaani ak suuf yuazibu man yasha mooy mbugal ku mu neex wa yaxfiru li man yasha mooy jéggal ku mu neex wallahu ala kulli shay'in qadir te yàlla bépp mbir mooy ko ci am kattan mi ngi noonu bokk suñu borom dana wax ne ki nga xam ne dajale àdduna kese moo ko fàtteloo ndigali boromam ba mu tabbi sawara borom bi nee na lu mu bëgg a jotoo kenn du ko nangu ci ñoom dañuy sax ci mbugal mu tar daañu bëgg a génn sawara ci duñ fa mën a génn daañ nekk ci mbugal moo xam ni mbugal mu sax la ba faw te mbokku sax sawara mook àjjana ñoo yem du jeex ba faw àdduna bi ñu nekk lu mu yàgg yàgg day jeex amma sawara du jeex àjjana du jeex borom boobu nag subhanahu wa taala wëlbatiku ci agression bu ndaw bi gannaaw ba mu ñu waxee agresseurs yu mag ya nga xam ne dañ leen war a rey wala ñu daaj leen ci ay croix wala ñu ah dagg seen loxoog seeni tànk kii moom daa sàcc sàcc boo xam ne sàcc bu góor wala sàcc bu jigéen suñu borom mi ngi ñuy xamal ne kon ndekete jigéen dana sàcc waaye góoru ëpp lu muy sàcc boo delloo suratu nuur ba muy wax njaaloo daf ne azaniyatu wa zani njaalookat bu jigéen ba ak bu góor ba lu waral loolu mooy njaaloo ci jigéen la ëppee naam ba demoon polyclinique léegi fekk fa ñetti junni jigéen ñoo xam ne dañuy gàddu seeni carte di njaaloo amma suñu borom mu ne kii daa sàcc góor lu am jigéen dagg leen loxoom kan mooy ki war a dagg loxoom na am mbokk société l'islam ñoo war a fexe ba am atteb l'islam samp atteb l'islam su ko defee kañ fiitale atte ya kooki moo am droit dagg loxo aji sàcc ji doonte ne ne doomu aadama amoo droit yow benn waay ñëw sàcc la rek nga ñëw daal di dagg ab loxoom waaye malheureusement biñ demee ba àtteeb lislaam boobu amute fi nga xam ne waa ji la sàcc moom mooy xelul boppam ba ne parax biir police yi gis ngeen loolu sàcc yi ñoo yóbbu seen bopp police ndax xam ne ne bu duggee police rek raw na léegi nit ñi lu ñuy def buñ jàppee sàcc na dee am déet islam dana lu ñu dagg loxoom léegi na sàcc na dee mi ngi noonu ñaata sàcc la ñu rey ci ndakaaru gi kenn xamul nañu toll benn waaye nettali nañu ci caaro yi ay gaa yu jàpp ab sàcc birig yéeg kenn xamul di dal benn waay daw fëgg chef de quartier bi ne ko ah ñu ngi rey fi benn waay de bi chef de quartier bi ñëwee daal di waa way bàyyi leen waaye sëñ bi yow xanaa doo jurit mu ne ko jurit laa kay mu ne ko jurit nga pare ngay sàcc waaye yàlla lu mu wax ci sàcc mu ne leen nañu dagg loo xam ne waaye dagg leen sama loxo te bàyyi ma waay gis ngeen parce que dañ koy rey gis ngeen loolu kon mooy injustice day jur injustice ñàkk àttiwal looy yàlla day tax jalgati gën a bëri islam dafa ñoo protéger xatta kiy def njombe waa ji sàcc na bu ñu ko rey bu ñu toj boppam bu ñu damm ci ay yaxam nañu dagg loxoom bàyyi ko mu dem sàcc googu nag mbokk soo dellu woon ci téere yi fiq yi dana gën a yaatu ala kulli xaal sàcc nañu xam ne mooy ki denc mbiram denc na ko ba pare nga doxa ko gannaaw jël ko loolu la ñuy tudde sàcc amma li wadd ci yoon bi waa ji far ko duñ ko tudde sàcc waa ji lañ ko dénkoon mu lekk ko duñ ko tudde sàcc ak yu bari bari bari duñ ko tudde sàcc bokk na ci daal loo xam ne ci jamono yonent bi amoon na benn soxna bu ñuy wax maxzum ya bokkoon ci benn maxzum ci ci ñi gënoon a foor ci arab yi moom nan la daan sàcce day ñëw ne a diw waaye doo ma al sa portable bi waaye nga abal ko mu laa di dem su demee nga toog toog waa sëñ bi doo ma delloo sa portable mu ne ban portable fekk ne dem na jaayi ko dem jëy chaîne or yeeg yépp loolu daan def ba bis ñu ñu ñu ñu jàpp ko ci loolu yonent bi alei salaam ne nañ dagg loxoom gis ngeen ca la ñu doon xalaat ne waaw ah kii de ñu dagg loxoom dana yéeme kee ñoo woo Usaama mu dem laaj yonent bi alei salaam ndax amul lu mu war a joxe ba luñ dagg loxoom Usaama mu ne musuma gis ni yonent bi mere keroog ca la ñëw yéeg ci kaw minbar bi mu ne lii nag moo alagoon ahlul kitaab ko tedd ba defee ci ñoom loi bu ko war a dal ñu nëpp nëppal ko bu ko baadoo la defee ñu daal di koy en teg ci moom loi maa ngi seede na bu Fatima sàccoon damay dagg loxoom kon loolu ñu gis ni ci wàllu façon sàcc nii la walla am na benn famille bu moo xam benn soxna boo xam ne dafa ñëw ci dëkkandoo bi ab ko benn lawi lami keewe or yu cher ci xew bu mu doon dem ah ab ko dem bi mu demee gannaaw ba ñëw ne ah dëkkandoo bi yàlla day dafa dogal man de làmb dafa wekkeeku wadd na réer na seet nañ ba sonn gisuñu ko mu ne ko ah loolu la yàlla dogaloon loolu la yàlla dogal bàyyi moo bàyyee bàyyee bàyyi ba mbir mi sedd lu jege presque xanaa ren ba déwén yàlla natt ko mu jël lam boobu dem ci benn tëgg pour tëgg bi tasal ko ko ay lam yu ndaw ndekete tëgg boobu moo defaroon lam bi bi dëkkandoo bi ñëwee indi lam bi na ko na ko tas mu xool ko xool lam bi di maa ko defaroon moom it yàlla def muy ko yeewu mu ne ko xam nga lu ñuy def man temps yi dama xaw a xat tuuti bàyyi ma rek ba gannaaw suba nga nga ñëwaat ah mu yóbbu ab lamam mu rocceeku dem ca kam ko tëggaloon na ko yow man lam ba mën a tëggaloon nangam fu mu mujj mu ne ko ah diw de moom ko abboon dem ni nee na daa réer mu ne ko réerul da koo sàcc yaa ngi dégg dégg nga ndaw si dem police ñu ñëw ci kër gi ubbi armal bi génne lam bi gaa yi lii sàcc la ah mi ngi noonu su ko defee kon yooyu ay forme la ci donte ne nag boo demoon ci téere fiq yi dana wax lu gën a yaatu loolu ala kulli xaal mbokk yi nañu xam ne du gépp sàcc la ñuy dagg loxo ki ñuy sàcc ki ñuy dagg loxoom day sàcc li ñuy tuddee robu au dinar robu au dinar mooy à peu près rek un gramme d'or ndax gramme éga dinar égal 4 grammes 25 donc rubu u dinar bi presque 1 gramme la rek à peu près bu teg ay 10 digg 4 1 virgule 10 rek gramme su ko defee kon dañuy xool gramme d'or lan lay jar ci marché bi laaj ko tëgge yi suñ ñee gramme d'or mi nga jar 20 000 su boobaa képp ku sàcc valeur u 20 000 dañuy dagg sa loxo waa ji sàcc na portable bi ah pourtant li ma jar ñu naa kii kat trente mille lay jar kon dañuy dagg loxoom léegi sàcc ne MP bi MP li ma jar ñu ne dix mille ñu naa kon kenn du dagg loxoom dañ koy dugal ci néeg bi duma ko waaye kenn du dagg loxoom gis ngeen. ala kulli xaal loolu mooy atteeb lislaam ci loolu ñu ngi noonu am na yeneen i atte bu dee dagg loxo ba it ñi ngi dagg loxo fi ñiy takk montre foofu la ñuy dagg loxo. loolu it muy waññe ne suñu borom fam ñuy wax bi ngeen dee tiim famsahu bi wujuhikum wa aydikum ay la gën a dëgër lay farata ci tiim mooy nga masa fi ñuy takk montre ba say cati baaraam ku ñuy sàcc ci loolu la ñuy dagg ci moom faqatahu aydihuma suñu borom ne lii mooy payu lu ñu liggéey lu tax doomu aadama yi dem ne ñaq seen alal wëlbati ko denc ko yow nanguwu liggéey rocceeku di nga sàcc sa fay mooy nañ dagg sa loxo jazaan ma kasaba waaye dagg loxo boobu it suñu borom mu ne dana jàjj ñeneen nakaal nakaal mooy luy delloo dana delloo keneen ki bëggoon a sàcc xalaat ne kat ba ma sàccee ñu gis ko dagg sama loxo portable bi bi mën a la sàcc daal dëgg dëgg jaralu ma sama loxo loolee kon dana ko delloo gannaaw borom bi nag subhanahu wa taala ne waa ji nga xam ne daa sàccoon fii rëcc na kenn gisu ko mu dema dema dem ba jimmi jamono ñu yëg ne moom kat tuub na tuub gu sell ba ngay jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell ku mel nii moom buñ ko jàppee kenn du dagg loxoom allahuma lu dul aqu doomu aadama yam sàccoon moom loolee moom dañ koy delloo ci doomu aadama yi suñ ko baalee ñu baal ko suñ ko baalul ñu fayeeku ko waaye xadd bi naroon a tege ci kawam ñeen day dagg loxoom kooku moom maadaama yëg nañ tub gu sell loolee kenn dootu dagg ab loxoom borom boobu nag subhanahu wa taala dañuy xamal ni moomam ngóorug asamaan ak suuf di mbugal ku ko neex di yërëm ku ko neex te loolu it yàllaa ngi ciy tontu ñi nga xam ne dañoo jàpp ne lii yàllay wax daal dafa doon loo xam ne nii dafa soxoro tiim nit ki di dagg ab loxoom wala tiim nit ki naan da nga koy rey waaw gars yi dee gi di bés bu ne yàlla rey su ko neexee tsunami bi amoon fi Indonésie ci benn minute la yàlla yëngal ak géejam mu rey trois cent mille personnes ñaata tremblement de terre ñooy am cent mille personnes sooxaloo ci biir suuf de loolu yàlla koy dogal waaye di ñi gëm chrétien juif ak musulman bi dañu am dogalu yàlla la naam yàlla mi dogal loolu nag yàlla moo dogal itamit ne képp koo xam ne jalgati ne nii di jaamu yàlla nañ jël loi bi daal di koy teg ci kawam loolee dana ko laabal laabal société bi yàlla na yàlla laabal suñu société insha allah taala
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمنا بأن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم جزاك الله خيرا يا أيها الرسول أي ينتبي لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر بم لتيس نيدي جكنت كافر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ci ñi nga xam ne dañuy wax gëm nañ ci seen gémmiñ ya walam tu'min qulubuhum ca gëm ca gëmul seen xol ya wa min alladina haadu bu ko topp it ca ña nga xamee ni nii ay yahud lañu sammaa'uuna lil kazib doon ñoo xam ne aji déglu lañu ngir fen kese sammaa'uuna li qawmin aaxarin doon aji ñuy déglu ñeel xeet yeneen lam ya'tuu ko ñoo xam ne dikkaluñu la yuharrifuuna al kalima min baadi mawaadi'ihi dañuy jàngal kaddu ga ci lenn ci ay place am yi mu waroon a tege yaquluuna in utiitum haada fa xuzuuhu naan bu ñu leen joxee lii jël leen ko wa in lam tu'tawhu faxzaru bu ñu leen joxul loolu moytu leen wa man yuridillahu fitnata koo xam ne yàlla dafa nam fitnaam day falan tamlika lahu min allahi shay'a doo moom ñeel ko ci luy bawoo ci yàlla ci dara ulaika alladina lam yuridillahu an yutahhila qulubahum ñooñu day mooy ñi nga xam ne yàlla bëggul di laabal seen xol ya lahum fi dunya xisy xisyun dana leen ñeel ci adduna bi ak toroxtaange wa lahum fi l axirati azabun azim dana leen ñeel ci àllaxira mbugal moo xam ne mbugal mu màgg la mi ngi noonu mbokk da ngay gis ne lii suñu borom mi ngi ci tënk mandarga naafiq yi ak yahud yu bon yi suñu borom ne ab yeneen tam li nga xam ne ñi ngi koy def ku nekk di jëkkante jëm ci ak kéeféer loolee yow bu ci am benn tiis duñ la mën a lor ci dara naafiq yi nga xam ne dañ naan gëm nañ ci seeni làmmiñ ca seeni xol gëmul lay preuve na xol yi gëmul mooy buñ jógee di jëf jëfee day safaanoog la ñuy wax mu bokk ci it yahud yi nga xam ni ñi ngi ñëw di la déglu si dégluwuñu la ngir bëgg a gindeeku ci diine waaye ngir am fen yu ñuy mën a nettali kese la di ko jottali yeneeni nit yoo xam ne buñ demee di fanaane wax lu bokkul ak yow la nga doon wax bayyata allazina kafaru ah mu ngi noonu dañuy fanaane loo xam ne nii bokkul ak yow la nga doon wax borom boobu subhanahu wa taala nag ne ñu mel nii nga xam ne dañuy ñëw di jëf-jëfin bu bon bi ca aaya yi lan moo ko waraloon ñoom yahudi bi ñu nekkee biir madina yonent bi alayhi salaam jàmmoo ak ñoom dafa am ñaari nit ñu njaaloo seen biir bi ñu njaaloo ñu ni waa dem leen ci muhammad mu àtte su dee ne àtte na la nga xam ne ñun moom la ñu mujj tëral suñu diine te yahud yi lu ñu doon def mooy bu ñu demee ay baadoo la ñoo njaaloo dañ leen di rey moom teg ci ñoom téere bi yàlla bi su dee ne ay kilifa ñoo njaaloo dañ leen di teg ci mbaam wërale leen dëkk bi toroxal leen bàyyi leen ñu ñibbi seeni kër ñu ne nag dem leen ci muhammad bu dee àtte na wax leen lii mooy mën na leen wëri la mbaam rek toroxal leen bàyyi ñu ñibbi su ko defee ñu defal leen loolu ñi ngi ci naxante ak yàlla di wax ne kon lii yàlla daganal na ñoom la nga xam ne sosoon nañ ko ci seen diine ji yonent bi alayhi salaam saxal na ko bu ngeen demee nag mu ne leen dañu leen rey su boobaa moom ngeen jóge ci moom biñ ñëwee wax loolu yonenti yàlla bi yonenti yàlla bi ni gaa yi fa ñëwoon ndax dem leen indi tawraat ñu indi tawraat mu ne waaw dama bëgg ngeen jàngal ma yàlla lu mu wax ci tawraat ci ñoo xam ne dañoo njaaloo waa ji daal di ubbi page bi daal ne waaw yàlla day nee na nañ leen toroxal rek bàyyi fekk fa benn ndaw abdullah ibnu salaam ci ñu tuuboon la mu ne yonent yàlla bi day fende gis nga fii mu teg loxoom ci tawraat bi yàlla ngi nii la yàlla wax ca mooy dañ leen war a rey loolu moo tax borom bi di wax ci beneen aaya kayfa yuhakkimuunaka wa indahum tawraat fiha hukmullah ila axiri ay kon suñu borom nee na lii mooy mbir ya nga xam ne moom la ñuy def borom bi nag ne kii yàlla subhanahu wa taala na mi fitnaal kenn mënul ci moom dara ca mooy sawara rek la jëm borom bi nag subhanahu wa taala ni ñii mooy ñi yàlla bëggul laabal seeni xol dana leen toroxal àdduna dana leen toroxal àllaaxira ci mbugal mu tar te it mbokk jullit nañ xam ne jaami yàlla bi réere ndigili yàlla kooku ko bon la ca mooy li ëpp ci nit yi tey faaliwuñu diine yàlla ji jàngewuñu ko mi ngi noonu al iraad waaye bokk na ko gën a bon ki jàng ndigali yàlla yi ba pare jël ko teg ko fële di jëfe bànneexu bakkanam suñu borom mu ne ngi mel nii day yàlla du laabal seen xol loolu nga ciy dégg ne kon yow mi xam ndigali yàlla loo gën a jëfe ndigali yàlla yàlla di gën a laabal sa xol yàlla di gën a yokk sa ngëm yàlla di gën a yokk sa xam-xam yàlla na yàlla laabal ñu àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw aw aw yan faw min al ard mooy ñu génne leen suuf génne leen suuf googu nag la Omar ibn al-Khattab gisoon ne mooy nañ leen tëj xam ngeen ne ki ñuy tëj mooy génne nañ ko suuf mooy koo xam ne ni kenn dootu ko gisati da ngay gis ñoo xam ne tey boo demoon ñu ngi leen tëj à vie ay camp pénal am na ñoo xam ne ñaar fukki at a ngi teguñu seen tànk ci biti am na ñoo xam dañu fay tëj ba seen giru dund kon loolu la ñuy wax yun faw minal ard doonte ne cosaan ba moom mooy ñu génne leen dëkk bi bu leen kenn gisati ci dëkkul islam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaleykum salaam wa rahmatulah moom damay laaj.
waaw waaye li nga xam ne nii day waaw naam bokk gis nga ko jëlee naam jël lu lu lu gën a ñaaw teg ko ci dara ne ab sàcc la.
naam
kooku bu ëllëgee te fekk li mu amul bu ëllëgee nan la yàlla war a def ak moom moom laay laaj.
ala kulli xaal la chaque ne doomu aadama bi ay tooñ ay façon la nit ki da nga ko tooñ ci deram da nga ko tooñ ci deretam tooñ ko ci alalam bokk na ci tooñuk der ci lu gën a métti ci tooñ yi ndax tey boo xoolee jëw tooñ la ci wàllu der te suñu borom nee ne ki koy def mi ngi mel ni nga sa mbokk dee nga koy dagg di lekk loolu it kon jiñ sa mbokk jullit ak càcc loolu yi bàkkaar bu garaaw la da ngay xool bu doon da nga koo jiñ ak njaaloo islam dane nañ la yóbbu ci pénc mi dóor la ca juróom ñetti fukki yar ca loolu mooy loi bi ñu la teg ci àdduna mu des nag sa diggante ak sa borom ala kulli xaal jullit du jiñ mukk doomu aadama du jiñ mukk ab jullit la nga xam ne mooy ab bakkaar ca amu ci ay preuve yoo xam ne da ko leer comme ni mu ko leere ni juróomi baaraam a nekk ci loxoom wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam naam nit di yëkkati kàddu la moom su jóotee moom mu rukkoon daa ku mu dendal dégg kàddu may laaj léegi sax
nit ki sujud di def ay zikr ba ñi muy dendal di ko dégg loolu day dañuy wax yàqul julleem waaye nag def na lu mu wurta def mi ngi def loo xam ne wuuru ko def yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñu doon wax kii julli mi ngi déeyoog boroomam yow yaa ngi déeyoog sa borom kii mi ngi déeyoog boroomam yàlla subhanahu wa taala la nga nekk sa biir xol sax xam na ko kon li ngay wax fexeel mu wax yem ci sa biir làmmiñ loolu tax ñu daan wax jullik biiral ak jullik yelu xam nañ ne xatta imam bi ci boppam sax dafay am fu muy biiral am fu muy yelu yelu mooy la yem ci moom loolee kon képp kuy julli say rukkoo ak say sujud yépp la ngay wax dafa war a yem ci yow waaye waroo ko yëkkati ba perturbé ñi nga xam ne dañoo sus ci yow wallahu subhanahu wa taala alam ci boppam ci lu benn kii.
naam benn kii bu gàtt rek te historiquement kii mu tudd ko wax banque yi naam bu ñàkk benn dimanche boo ñu ko mën a baaxee jëlal ci jeunes ñi mën ci xam lu bari
waaw xëy na loolu moom moom ñu dund suñu jamono yi bari na ñoo xamuñu lu bari fu ñuy jàngaat ci quoi waaw xëy na yooyu mën na nekk ci ay xutba insha allah yàlla baax na ala kulli xaal Omar ibn Abdul Aziz day ñu xam ne ndaw la woon boo xam ni dafa màgg àdduna wuy si ko mu dëdd àdduna jubli ci boroomam àdduna topp ko nii laa la ko mën a tëddee mooy àdduna wuy si na ko mu won ko gannaawam àdduna topp ko yàlla def ci moom nguuram loo xam ne néew na nguur bu mu am euh, yal na yàlla wëlbati suñu ndaw yu jullit yépp def leen ay Omar ibnul Abdul Aziz yàlla rafetal suñu mucc defal ñu àjjana suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw